abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci mi ak wala fii dañuy faral di wax naan sàcc ndënd yomb na waaye fu nga ko tëggee moom moo jafe waaye dañuy sàcc sunu ndënd ba noppi ñëw sunu buntu kër di ko tëgg nag te duñ ci mën dara dafa mel ne démb loolu la gouvernement bi doon def ginnaaw li xew ci réew mi yëpp ay bakkan faatu ci ñi ci kaso bi ñi ñu jàpp leen yàqu-yàqu yi bari gouvernement bi génn Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall Amadou Ba ba ci Antoine Diome ñoom ñëpp génn di lay ci li xew ci réew mi mbiri Ousmane Sonko xale ñu rey CPI Sud Quotidien ñoom daal wax nañu seen i dëgg turbine ne ratatati rek wax nañu wax wax wax ba wax fu dara nekkul waaye yee ñu kenn kenn gëmu leen convaincre ñu kenn vidéo yi ñu gis ay takk der wan ñu ko Antoine Diome ñëw di ñu wax ay manipulation ak ay lu ne Sonko kañ lañ koy jàpp ak mën a nekk constitué wu lii di prisonnier moom kooku le di Ousmane Sonko yéene kaay des médias bi ne yayuñu kenn wax nan daal ba wax fu dara nekkul gouvernement bi dikk noonu la ko yéene bi di leen foo waxee ci laas ñu ne wax nanu seenuk dëgg ci li xewoon ci mim réew di Sénégal surtout aanée ñaari waxtu yoo xam ne doon doon sóob rek wala soob bugaan géy dandi ne ñi ñoo ñeme gàcce ñu ñoo ñeme ay duma ñi danoo dër kis de bugaan ne démb gars yi boo leen déggee ñiy wax dan fee wax boo daaneel waxuñu fi Papa ci yéene bi di suuf su a ci wal fajri bugaan géy dandi jubbanti leen ne gouvernement bi li mu wax démb du tax kenn dóor doomam de bari na ci wax yoo xam ne ne lu ci ëpp ay kàcc la ngir dóor askan wi rek tëgg leen wandeelu ci yéenekaay bi di Walf Quotidien ci la turbine boroom gëm sa bopp ne li nguur gi doon wax démb di ñu ko gëmal di taskatu xabaaru Sénégal yi taskatu xabaar ya nekk bitim réew waaye waay waay leeral nañu lépp ji kàcc yoo xam ne nguur gi ñu ngi koy kàcc lépp loo xam ne tabax nañ ko rek ci ay kàcc yi taskatu xabaar ya nekk biti réew toj nañ ko ba mu tas tasar liñ def Walfadjri Bougane ne ab dictature la jaay doole képp la du lenn ndaxte dafa bokk ci presse yoo xam ne su ku ñu jébalu kanamu nguur gi naam nag loolu bëgg ñëpp defal leen ko ña nekk bitim réew na kenn moomu leen wane dëgg gi ci réew mi ci bakkan ñi ñu faat ci nervi yi ak ngànnaay yi doon taxawaalu te ay civil yor ko ci mim réew di Sénégal ñu wax nguur gi bëgg kaa weddi li ñëpp teg seen bët ñu bëgg kaa weddi Bougane Gueye Dany ne leen seen démb daal ay kàcc ngeen doon tabax waaye toj nañu lépp ba ci mbiri Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany jàpp ni jaay doole la ak jaay kàttan ndaxte koo daan giñ viol giñ ko menace de mort dem ba viol ak menace de mort amatul ngeen di ay tappale naan corruption de la jeunesse Ismaïla Madior Fall na ci yéeni kaay bi di Sud Quotidien waay waay kii di Ousmane Sonko mën nañ ko attiwaat bu ko bëggee ak kañ leen koy jëleeg ñoomin seen moo tax Sud Quotidien yamul rek ci kàddu kii di Ismaïla Madior Fall di ministre de la justice dafa dem wooyi à di kàngam bu toll nii délai quinze jours yu ñu wax di fukki fan ak juróom yi concerné wul kii di Ousmane Sonko ndaxte ak Ndeye Khady Ndiaye seen i mbir nu benn seen atte du benn Ousmane Sonko am na juróomi at ngir mën a xoolaat procès ak na lañ koy attewe ak nan lañ koy attewaat Bougane Gueye Dany ne ci wal Walf Quotidien ak ci Source A ba ci laa turbine loolu kay jaru ko woon ndaxte nag lan ko doon jiñ comme nekkul waroon nañ ko may jàmm moo tax waa Pastef yi jóg ci yéeni kaay bi di yor yor ne Ousmane Sonko bu bokkul ci élection atum 2024 élection du am ci mim réew di Sénégal Birame Souleye Diop ak waa Pastef yi ci yéeni kaay bi di 24 heures ne ña ngay lancé pétition sax ngir ñu tas parti bi di APR ndaxte parti boobu ca la ab kàngam génn nangu ni ñoom danoo ngemboon ay volontaire de la sécurité ay punkal yor ay ngànnaay loolu nag bu demee ba am ci ab parti politique parti boobu le dañ ko war a tas loolu di kàddu yi Birame Souleye Diop ci yéene kaay bi di 24 heures nguur gi nag pression boobu ñu leen teg moo tax démb ñoom ñëpp ñu génn takk rajo yi telli telli ginnaaw bakkan yi bari yi rot bakkan yooyu le sakkan loolu yéene kaay bi di yor yor ne ay xale yu tuut tànk yoo xam ne dëgëraguñu doon ay waxambaane yi ñàkk seen bakkan ci manifestation toll nañ ci ñeent fukk ak juróom-benn yoo xam ne faat na leen ci atum deux mille vingt ak atum deux mille vingt trois yéen i kaay bi di yor-yor ne kaay ma limal leen Ousmane Sakho 17 ans Souleymane Salon 25 ans Lassana Sakho 23 ans Bassirou Sarr 31 ans El Hadji Mamour Sidibé Mor Mbaye Khadim Ba 22 ans Babacar Samba ñu naan ko Mbaye Doudou Diène alias Petit Bakary Diémé Ibrahima Drago Mohamed Silla Ismaïla Traoré Babacar Mbaye Babacar Ndoye Tamsir Cissé Abdoulaye Camara Mamba Fassar Seyni Koli Souleymane Danfa Sarr Bounama Simpa Sagna ma Serigne Gueye Alassane Bari Baye Cheikh Diop Chérif Abdoulaye Mané Famara Goudiaby Modou Ndiaye Pape Sidi Mbaye Mansour caw Cheikh Ibrahima Koli Cheikhouna Ndiaye Cheikh Wade ba ci Moussa Dramé yéenekaay bi di yor yor ne ñooñ ñëpp dañ leen a faat ci diggante mars 2021 ak juin atum 2023 ñu ngi toll ci ñeent fukk ak juróom benn ci waxambaane yoo xam ne fii lañ leen faatee ci ci mim réew di Sénégal yéenekaay bi di yor yor ne loolu la ñuy xaar justice def ci liggéeyam